l'avènement des OGM. très bien euh, tey euh, ñu ngi assemblée nationale si seen fin de législature si seen fin de mandat ñu xaatim ko pour permettre ñu dugg mais ci gëstu yu ñu def nee nañ même avant ñu koy xaatim OGM yooyu mu ngi woon ci biir réew mi. OGM yooyu mu ngi woon ci biir réew mi déjà damay ñëw ci ni ñu voté loi bi boo xoolee ni ñu voté loi bi respecté wuñu le protocole de Carthagène le protocole de Carthagène à son article 16 xaw ma 13. dit que ne booy voté loi yu mel nii sa biir dëkk ñëpp ko war a yëg. Mhm. et ils l'ont voté à catimini mmh. donc ils l'ont pas respecté. léegi nga ñëw stratégie bi ñu jël foofu ñu ngi ko def le mois de juin xam nga Sénégal defe naa dañ ne élection dara buy waaj jot trente jours avant waroo jàllale benn loi à l'Assemblée. Mhm. fexe nañ ba jàllale ko avant foofu parce que xam nañ ne. tous leurs opposants seront sur le terrain en train de faire di de battre campagne de battre campagne moo tax sax boo déggee ko Sonko Ziguinchor la ko yëgee waxee ko ci benn tournée bi mu doon def Ziguinchor léegi nag ñu ñëw ci OGM yi OGM yi je suis venu ici si émission li ci dëkk bi defe naa j'en ai fait deux émissions très techniques qui a suscité le débat ba ñëpp di ci wax OGM mu ngi Sénégal fan yi nag génn nañ weddi ko mais je vais redéfinir c'est quoi un OGM l'OGM mooy organisme génétiquement modifié loolu mooy leen lépp lu yàlla sàkk muy dund ci ginnaaw da nga am lu ñuy wax des éléments chimiques sa ginnaaw gène ay éléments chimiques yu ñuy wax base base yooyu nag que nga nekk yàlla mu bind la ngay dund nga nekk gàncax mala wala nit ñun ñoo ko nduroo kon donc changement bi day mën a nekk suñu biir une fois nga changé ko rek moo tax ñuy wax organisme génétiquement modifié léegi nag boroom xam-xam yi tamit d'accord nañ ne boo ko defee comme nag xamoo génome lam moo tax ba léegi yàlla defar ko xamagoo ko day indi ay conséquences ba limoon ci ay feebar cancer problème de l'utérus problème mu jurukaay et cetera ki ci def jàngat bi gën a mag mooy le professeur Célarini une étude de trois ans keneen defu ci bu ëpp boobu ñoom it ñu d'accord si selon la convention d'Oviedo en Espagne ñu ne du ñu mës a laal génomu génu être humain di ko def nit OGM. Mhm. nee nañ ci mala la ñuy yem ak ci gàncax. waaye am na ndawu Chine yàggul dara judduloo na ñaari xale seex yi jigéen ay OGM lañ. loolu mantoon na leer c'est juste pour l'info léegi nag bi ma ko fi génnee wax bii passé dañu yónnee ñaari nit pour ñu tontu kenn ki ne OGM amul Sénégal ministère de l'agriculture sax la nekk mu ne OGM amul Sénégal bu dee day am Sénégal moom moo ko war a signer comme mosu koo signer OGM amul Sénégal ma rappelé ne loi bi à son article six avant dernier paragraphe daf ne OGM Sénégal ñu ngi ko dénk ministère de l'environnement pas ministère de l'agriculture mm-hmm. mu dem article dix mu ne képp ku fiy dugal OGM da ko war a yëgal ANB ANB mooy lotorité autorité nationale de la biosécurité moom mu jël ko jox ko ministre de la de l' environnement mu validé ko kon gis nga ne amul benn yoon fu ñuy wax DPV ni ministre de l' agriculture kon donc moom li mu wax du dëgg waaw mm-hmm. keneen tamit ñëw seen plateau fii une édition du soir dalaloo ko woon nag keneen sa mm-hmm. beneen collègue moo ko dalal mm-hmm. un professeur nee na mu ne am na kenn ku fi ñëwoon wax l' étude du professeur Selarini man la bëggoon wax mu ne étude boobu wérul parce que am na lu ko contredire déjà moom ci wax bi rek feeñal na boppam daf ne moom il était si li ñuy wax la le conseil d' administration mm. de benn laboratoire bu ñuy wax Locustos mm-hmm. Ceres Locustos te Ceres Locustos et partenaire avec le démembrement américain USDA bi nga xam ne mooy dugal OGM ci dëkk yi mm-hmm. kon donc moom il est en conflit d' intérêt mm-hmm. donc mënul wax loo xamante ne dafa contre OGM waaye ba léegi gis nga les OGM ñun waxuñu ne bu mu fi am ku nekk et libre de choisir. ah oui ça se la sorte un peu partout dans le ñun nag li ñu bëgg mooy ñu bindal ñu si étiquette yi ne li OGM la walla du OGM ku bëgg a jënd OGM jënd OGM ku bañ jënd OGM bu mu ko jënd mais ne kil arrête de toog ci plateau yi ne OGM amul Sénégal j'ai fait des analyses bi ñu ma déggee wax jooju damaa dem France yóbbu lekk yi ma ciblé yëpp ne OGM la mooy yóbbu ko en France ñu defal ma analyse yi génneel ma analyse yi jox ma ko. ne ma bu dee OGM e ngay seet ci produit bi xamal ne OGM e la bu dee li ànd ak OGM e la parce que OGM daa am lu muy àndal xamal ne ànd nag moom mu ne ma nag yow sa OGM dafa maa jaaxal ndaxte daa am ñetti gène marqueur ak onze gènes d'intérêt jeune marqueur dañ koy def ci OGM pour xam ndax jeune bi ñu ci def jàpp na mhm. gène d'intérêt mooy jikko bi ñu ci xalaat a def donc ça veut dire OGM ñaari jikko la mën a soit day doon jiw ba pare nekkaale tooke lu ko lekk dee maanaam ay gunóor rax yooyu mhm. wala mu nekk un tolérant en herbicide mooy maanaam bu ñu ci sottee tooke mhm. tooke bi dina rey ñax yëpp sauf OGM bi mhm. xanaa loolu rek jar boo sottee poson léegi mu ne ma gis naa ci ñetti produit yoo xamante ne dañ ko tere Europe surtout dinocap bi mu ne ma dinocap depuis 2009 dañ ko tere Europe parce que c'est cancérogène léegi alors donc lenn rek mën a prouver ci ab dëkk lii OGM e la wala du OGM e mooy c'est la science. man j'ai mm-hmm. passé par la science j'ai pas passé par les les spéculations. tey jii bu fekkee ne OGM e boobu mi ngi fi également dugg ci biir dëkk bi. Mm-hmm. Euh, xamuñu voyum ak euh, dugg ba agsi mais également comme que déjà ñu ngi jànkoonteel problème mu suuf tey jii mënatuñu dissocier comme ni nga ko bëggee ne aliment bi OGM la bii du OGM la par exemple bio la comme un, ça se passe un peu dans les grandes surfaces en Europe. Mm -hmm. mais tey jii avec les tey mënatuñu dissocier lii mooy OGM wala lii moo dul OGM parce que la contamination il faut le dire est très rapide également. yéen na wax nga phrase bi gis nga OGM boo koy bay ci dëkk même ñeneen ñi bu ñuy bay leneen yëpp lay wàll. Mhm. parce que boo xoolee fii kii daf ne la <coughs> gis naa ci onze gènes yu bokkul yoo xamante ne quatre quatre entreprises yu bokkul ñoo ko moom parce que OGM bi par entreprise ñoo koy moom benn bi mu ne Syngenta ko moom beneen bi mu ne Dow beneen bi mu ne Monsanto beneen bi mu ne maax laborantin bi benn chose dañu d'accord ne wàllante moo ci am par l'effet de la pollinisation ngelaw li moo ëpp ab pollen yóbbu ko ci yeneen tool yi kon nag bu fekkee Sénégal ñoom dañu bokk ci li ñuy wax la biodiversité xamal ne OGM day yàq la biodiversité kon donc tey ji OGM boo ko jiwee fii ku mu wàll keneen tool boobu une partie sera OGM yow nag bu fekkee ne nga yaakaar ne bayoo OGM nga ne xaaral ma tibb ci tuuti pour pour bayaat ko déwén déwén boo ko bàyyee du sax parce que OGM benn yoon lay sax. Mhm. dañ ko breveté si ki nga da ngay dem ci moom jënd bu saxee benn yoon boo ci jëlee doom bi boo ko dugalaat ci suuf du saxaat donc du coup le problème de la biodiversité ak de la contamination bi ngay wax ça se pose généralement par l'effet de la pollinisation. Mmh. déjà dugg na ba pare mais que mu bañ a am yenn évolution et comme ni ma koy wax suñu baykat yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci war a liggéey ñoom amuñu taux. d'alphabétisation bi pour mun a xam naka la ñuy dissocier li ni mel mooy indi euh, problème bi nga xamante ne on est en train de le présentement. xam nga rapport bi jox président bi pour mu valider OGM le président bi mu ngi valider OGM Sénégal le 28 février 2000 2017 lors du euh, de la conférence de l'ANTS l'ANTS mooy. Euh, l'académie donc c'est validé en 2017. c'est validé et on en parle qu'en 2022. non loi bi mu ngi fi woon depuis en mais ñoom dañ ne loi bi permettre mu dugg Sénégal mais mu ngi doon dugg mais président Macky Sall moom publiquement nangu na ko depuis 2017. léegi rapport bi ñu ko jox looloo ma gën a la xari xoolal rapport bi rapport de rapport de ñaata page la rapport de onze pages amul dara lu scientifique lu nekk fii c'est de la littérature lépp dañ ko bind. léegi li naxarlu fii mu ne 68 pour cent ñiy jàngi de ñoom ñoo def rapport bi ñëw ñu ne président. 68 pour cent de la population sénégalaise nangu nañ OGM e ñu ne leen foo leen defee jàngat bi mu ne jaar nañ si journalistes yi dem nañ ci baykat yi ñu ne leen yan baykat ngeen dem ñu dem gëstu ji si yan baykat lañ dem yenn baykat yi ne ñoom bi ñu fi ñëwee ñenn ñi biñ fi ñëwee si baykat yi rek lañ dem comme ni nga doon wax comme jànguñu si ñoom mm. rek lañ dem biñ ñëwee waxuñu OGM e de dañ ne semence de recherche kon donc yow sa sa rapport bi est biaisé ndax waxoo ki ngay wax OGM e la leeraloo ko la mooy OGM e kon donc lépp lu mu la fa wax xamal ne ci base bi nga ko expliqué la ko nangoo yaa ngi dégg léegi bu fekkee ne depuis 2011 nee nañ loi bi 2011 da ko tere à son article 18 léegi ñoom nag dañu indiwaat loi bi modifié ko pour que 2018 bi tëb pour que fii mel ni sabar bu tas ñu mën a dugal OGM e sans contrôle sans rien léegi nag man su may wax OGM. des fois keroog ki ngénnoon seen télé gis naa ko mu ne diabète yi insuline bi ñuy utiliser OGM la je suis d'accord mais OGM en milieu confiner la cela veut dire que toog nañ dix ans di ko testé di xool ndax baax na mm-hmm. mais OGM bi ñu te loolu noonu loi bi à son article 4 ko réglé ne OGM bii may lijjanti nii waxuma bu maladie yi mm-hmm. ak yooyu OGM gàncax laay wax léegi nag moom ci boppam OGM bii depuis nga xam ne ne mu ngi fi nekkee ba léegi léegi lan moo tax yow nga ne da ngay dugal beneen loi pour ne da da nga koy yombal mu dugg fi mais mu ngi fi déjà ça sert à mais tey on a préféré donc la quantité à la qualité et euh, quantité boobu tamit am na leneen lu muy yokk si dëkk boo xamante ne plateau sanitaire am lu yàlla xam doy na. jeex na loolu laa bëggoon tontu sax. <laughs> ñu indil ñu OGM bi. Euh, tey jii c'est-à-dire que yaa ngi doon wax ne en 2000 xaw ma lan on sera 35 millions d'habitants mm -hmm. mais est-ce que ça risque d'arriver si on continue à consommer déjà ni ñu gis euh, recrudescence cancer à gogo ci dëkk bi les diabétiques tey da ngay gis euh, xale yu ndaw léegi diabétiques et autres tout le temps te suñu plateau sanitaire mayuñu loolu tey jii et c'est-à-dire que tey nos autorités ne misent pas sur euh, la santé ak politique bu ñu war a développer également gis nga loolu li koy firndeel maladie yi nga wax ni yëpp professeur Seladini da ko génn fii euh, une étude de cinquante et un pages moo gën quand même bu onze pages bi au moins fii am na ay ramifications de chimie pour wane ne de li mu def la. Mm-hmm. moom dafa jël ay kaña def ci test. xam nga tey waa santo wala kuy def OGM buy indi test trois mois la lay indi mais moom mu def test yi pendant deux ans si kaña yi mais mu gisee bu passé trois mois kaña yi dañuy développer ay tumeur ay tumeurs yu indi dañuy indi dañuy am problème mu diabète am problème mu rein. Mhm. dañuy am problème euh, jurukaay mooy li nga tudd fii yëpp. léegi nag bu fekkee ne ñoom bëgg nañ dugg ci OGM yi Sénégal machine u dialyse daal dañ ci jënd lu bari. Ah, waaw machine u dialyse parce que day am problème mu rein on l'aura machine u nañ dañ ko xam nga déjà problème u jalis dégg da nga fiy dégg koo xamante ne dafa war a jalis ba ba faf yàlla décédé te du ko am ni ñu jënd jalis yu bari bu fekkee dana su fii ils règlent pas le problème ils sont en train de déplacer le problème te lii problème mu lekk chaque fois loolu la ñuy wax ne noo OGM yi bu ko defee ça règle problème de la production di am production bu bari et cetera mais ils l'ont fait au Burkina Faso ñëw yóbbu fa la coton BT ne leen di nga am production record et cetera et cetera 2009 lañ ko def ba 2016 burkinabé yi gisuñu solution gars yi burkinabé yi jël yat génn fa Monsanto ñoom it ñu ñàkk jom en 2019 ñu indi fa waat ay ay yoo OGM parce que yemul rek ci gàncax indi fa ay yoo OGM biir Burkina testé ko ci benn dëkk bu ñuy wax boobu jilaasu mais quand les gens se sont rendus compte de mais ils se sont léegi nag même ñi nga xam ne ñoo indi woon moustique OGM yooyu. ñëw nañ fi 2021 fii Sénégal jamono yooyu ministre actuel bi de la santé moo nekkoon euh, beneen direction bi mu nekkoon ñu bëgg ko valider tuddee ko Gen Drive bëgg ko dugal fii Sénégal alors que même projet bi def nañ ko Brésil et xam nañ ni mujjee di indi ay yoo yoo yooyu au ñu dem parce que yooyu lii seen objectif mooy dem rey yooyu di indi paludisme mais au Brésil li ci génn mooy yoo yooyu dañu génn. dem di nobonteex yoo yële. Mhm. di jur yeneen façon yoo yu gën a graaw. mais est-ce que lii yëpp ça entre pas dans le cadre euh, ci euh, ordre mondial bi nga xamante ne moo di wax réduire euh, la population parce qu'on est en train de gratter notre tombe avec nos dents. parce que keroog bi ma bokk ak plateau bi euh, professeur Cheikh Omar Diagne a fait lien il en a pour wane ne. le nouvel ordre mondial bi nga xam ne Bill Gates parce que xam dara de OGM yi Bill Gates moo ko bëgg a dugal fii. Mhm. te Bill Gates yi ñu gëm ne ne Afrique nit ñi dañoo bari. si la bokk si la bokk. te moom nee na yi waruñu bañ OGM parce amuñu choix ndax amuñu.